mbokk ami internet yéen ñu ñuy seetaan tey nag euh, fii si seen site euh, info rewmi point com euh, ñuy nuyu Sénégalais yëpp di nuyu waa diaspora di nuyu ñi nekk si 14 régions yëpp tey nag dañu ñëw fii ci marché Dior fekk fii waa Dior cosmétique ah en face station Total bi yaakaar naa ñu bari miin nañ ko muy chez Modou Dramé tey nag moom la ñu fas ñëw andil leen produit yi nga xam ay gamme yu alléchant gamme yu bees tàq last cri ànd seeg sama caméraman jom ñaaw bi Cheikh Diop kon nag topp leen ma moo woon leen li ci biir gars yi du yomb de fii la chez Dramé mbokk yi comme ni ma leen ko waxoon rek tey du yomb ñu ngi fii ci chez Modou Dramé muy nekk euh, Dior cosmétique en face station totale bi ñu duggee ci biir nag euh, am na fi ay gamme yoo xamante ji ay gamme de produits yo xamanteni ni ji lasticri yoo xamante ni ji mooy bomb kalaak toll ni si 2019 bi euh ta xamna ni état bi mi ngi ñew ta euh, xam nga rek xalé yu jigen yaa ma gëna xam ak gaay yi nga xam bëgg goor yi nga xam bëgg nañu baax bëgg yu xeeñ yu neex inshallah allah bu ñu ñëwee fii rek seen xol dina sédd muy grossiste muy détaillant muy demi grossiste ñom ñëpp euh, fi nga xamni moy chez Modou Dramé Dior cosmétique nek fi ci marché Dior en face station Total parcelle Assainies bu ngeen fi ñëw seen xol dina sédd tungu ni teew nak du ñëtal mani ni déedéet ñun dañuy filmer wan leen ko ba mu leer nañ kon nak dañuy jakarlo ki nga xam ne Mansour Mansour Mansour Dramé mu présenté ñu produit yi nga xam ne last cri yi nga xam ni temps yi moom la xale jigéen ñi di wër di góor ñi di ko enjoy kon loo ci wax Modou. waaw maa ngi leen di nuyu di leen présenté gam bi nga xamante ni mooy mu nekk gam boo xamante ni gam Sénégal la nekk gam boo xamante ni qualité la original nekk gamb complet am lépp nekk na gam boo xamante ni góor dina ko utiliser jigéen dina ko utiliser ñëpp dañ koy utiliser am ay parfum li lave-main la lave-main bi amna na trois parfums yoo xamante ni la bi olive bi la amna ki bi ni fraise bi la nek na ay parfums yu neex yo xamanteni moy mooy bo boo utiliser bo raxasoo ba pare xet bu neex lay am amna ay déodorant comme yi ni déodorant bi ni amna na quatre façons yu bokul yo xamanteni ni ay parfums yu neex la amna lait lait bi ni lait simple la bo xamanteni 48 waaw bi wa bi may 48 heures bi lait bi waaw ak bii gisoo bii parfum olive la aloe vera bii nii boo ko gisee nekk na loo xamante ni góor ak jigéen ñëpp dañ koy utiliser lait kii la daal amul amul éclaircissant amul dara bi nga xamante ni mooy waaw lait de corps la bi nga xamante ni mooy éclaircissant bi la moo nekk nii mais moom pour teint marron yi la jigéen ñi nga xamante ni bugguñu xeesal ñoom ñooy utiliser bi maanaam du la xeesal du la def dara mais dina la jox teint bu set bu leer naññ moo nekk nii bii shampoing bi la 100 points bi mo nek li a ci gam vewan bi la. 100 points bi mo nek ni même 100 points bi am 4 quatre façons. Mhm. yo xamanteni bokkuñu. Y ay parfum la quoi. gisso mo nek ni amna rose bi. Mhm. am bu vert bi y tamit non dafa dafa bax boo koy raxasee sa bopp nii dafa baax trop trop sax gisoo bu bu moof baa nekk nii moo nekk nii yëpp moo nekk nii mhm. am na parfum ndox yoo xamante ni tamit mhm. day neex trop ci tàngaay bi même seddaay bi nii da ciy neex trop mhm. xam nga tàngaay bi moom bu ñëwee parfum ndox yi da ciy dox parce que parfum yi amul alcool amul dara waaw dafa naturel ba pare parfum bi dafa sedd am na parfum yoo xam ne boo amee alcool da nga koy laal sa yaram muy tàng mais bii dafa sedd guy parfum bu neex la day attiré waaw même am na bu góoram yu góoram moo nekk nii. même parfum bu jigéen bi comme ni muy amee gamme bi nii bu si nekk day am ay trois façons yi quatre façons. même bii bu góor bi la bu góor bi tamit xet bu neex la. xet la boo xamante ni da koy dóor. mu neex torop même yow mi ko laal da ngay dem ba fàtte ko sax fekk xet baa ngi fi moo nekk nii neex la def même bii am na déodorant mhm. déodorant roulon yoo xamante ni mhm. moo nekk nii moom laa lay wan gisoo déodorant roulon bi moo nekk même roulon bi am quatre façons. roulon bi la quoi. roulon yi la 48 heures 48 heures la yii dafa mhm. même bu góor bi ma la wan sànq moo nekk nii. gisoo bii la. waaw moom laa lay wan nii. gam bi daal am na mhm. même mhm. am na parfum yoo ay parfum la. parfum de classe yu neex. am yu jigéen. moo nekk nii bari na quoi am na yu nekk nii xaar la yóbbu mhm. bu jigéen la ay parfum de classe la yoo xamante ni parfum yu neex la mhm. yoo xamante ni xet bi du dañ du dañ gisoo mhm. ba pare bouteille bi rafet na trop gisoo moo nekk ni bi yëpp ci veewan bi la ci gàmmu veewan bi moom laa lay ni ba tey nii dafa am lépp lépp la am bàyyiwul dara tout kon yaakaar naa ni Cheikh ñi nga xam ne ñooy grossistes yi wala détaillants yi wala demi grossistes yi fu ngeen mën di nekk ci 14 régions du Sénégal wala ci région de Dakar su ngeen ñëwee fii ci Dior Cosmétique en face station Total Parcelles Assainies yaakaar naa bu ngeen laajtee chez Modou Dramé incha allah seen xol dana sedd ngeen jël si lu ngeen bëgg ngeen yóbbu jaayewaat wala ngeen yóbbu seen kër xeeñ mu neex rawatina xale yu jigéen ñi kon nag euh, bu ñu jógee ci euh, présentation euh, parfum yeeg lait de corps yeeg yooyu dañuy ñëw nag li nga xam ni yitteel na bépp jigéen boo xam ne ji actuellement da nga nekk sa ménage yàlla dénk la ay tout tànk nga yor bébé ñu ñëw ci couche bi nga xam ni couche de soulagement la tudd. couche bi nekk na ba tey bii ci couche yi la bii mooy nekk couche boo xamante ni mooy Love Baby nekk na couche boo xamante ni sax Sénégal kenn du ko présente parce que couche bii nii bokk na ci couche yi nga xamante ni bokk na ci couche yi njëkk a wàcc Sénégal fii mën naa ne ñëpp xam nañ ko képp koo xamante ni yaayu bébé nga yaa ngi utiliser couche Love Baby xam nga ko même ma lay expliquer ci couche moo nekk ci bii bii tamit qualité la coton la. amul lenn lépp loo amul lenn loo xamante ni mooy li jege tuwaat lépp coton la ba pare côté yi nii moom tamit dafa am élastique moom lépp la am daal nekk na couche bu qualité zéro toile waaw couche bi ma présenter. présenté moo nekk couche bi nga xamante ni mooy couche soulagement nekk na couche boo xamante ni booy qualité booy wër coton lépp moo nekk nii quoi couche la boo xamante ni couche bu qualité torop sax bañ nañ ko ba tur bi ni ñu ko tuddee soulagement boo gisee soulagement mooy bébé bo xamanteni sa saa ko kuusoo rek da ngay soulager do fa nek mu lay def ay boy di la def ay picc amul yoy bi lepp coton la ci bir ak ci biti amul lenn lo xamanteni toile la ba pare côté yi ni dama la koy wan lo xamanteni xam nga sénégalais preuve la xam ñom ku di wan li ñuy gis lañ bëgg giso côté yi ni élastique la li élastique la maam kous bi man boko ko bu la nexé da ngay def mouvement bu la nex bokk la nga xamanteni am col ngay def mouvement mi bay wala affaire yoy même bi ni li li taf la tey xale bi nii bu ko neexee bu kuusoo ba guddi gi nii bu ko neexee mu bëgg feex wala genre affaire bu la neexee nga dind ko bàyyi col bi nii du def dara bu la neexee da ngay ñëw rek jëlat kolaat maam nekkul kol boo xaman ne dafay naaw boo gisee moo nekk nii lépp coton la amul toile gisoo lii nii lépp coton la te day téye ndox day téye ndox bu baax bu la neexee pot ndox bu la neexoon tey ma sotti loxo ci day naan lépp lépp lay naan boo ko gisee moo nekk nii xàmmee leen ko bu baax a baax nekk na course boo xam ne amul amul false amul dara mm-hmm. benn nit kese moo koy indi muy Mamadou Dramé amul keneen ku koy indi Sénégal xam nga course yi bëri en général bu ñu indi ay course indi course da ngay gis mu am ay false mm-hmm. mais bii soulagement nekk na course boo xamante ni mm-hmm. dañ ko protéger keneen mënu koo indi fii rek ñoo ko mën a indi mooy Dior cosmétique mooy c'est Mamadou Dramé ñoom kese ñoo ko mën a indi mën nañ ñëw ci âge bi premier âge deuxième âge troisième âge waaw li lay wan ni mooy deuxième âge bi faj nañ ko ba course yi dañ ko séparé maanaam couleur yi ñu roowuñu deuxième bi moo nekk couleur vert troisième âge bi boo orange. premier âge jaune. soulagement qualité. Mhm. Nous avons premier âge man 3 ba 6 euh, kg. Euh, deuxième âge 4 kg, 9 kg. je ki troisième âge 7 kg 18 kilos je kon tamit euh, ñi nga soxna yi bébé ñu bàyyi xel ci course bi xamni dafa nek lo xamni ne de qualité la comme ni nga ko waxee ni euh, Modou Dramé kessé moko amagul pour le moment fi ci Sénégal waaw kon nak euh, grossistes yi yéen nek ci région yi fi ngeen mën di nek ci biir Sénégal ak région de Dakar daw leen gaaw ngeen ñew fi nga xamni ni mooy Dior cosmétique en face de la station Total nek ci marché Dior yu mëna xam bu ngeen ko laajtee rek inshallah di ngeen ñew ñu ravitailler leen ba ba ngeen kontaan ñi nga xamni tamit ñoo nek environ jege mën nañu waxu ñew ndank fi ñu jaay leen détaillant n'est-ce pas waaw ñun dañuy def en gros dañuy def détail dañuy def demi en gros lépp la ñuy def lépp la ñuy jaay jaay lépp la ñuy jaay détail en gros tout lépp la ñuy jaay lu waay bëgg rek boo ñëwee fii da nga ko fi fekk moo nekk ni Dior cosmétique lépp la ñuy jaay am nañ ay rouge à lèvres ay rouge à lèvres même rouge à lèvres am nañ boo xamante ni Gabrini la tudd euh, kii la euh, produit make-up la quoi. boo xamante ni am na lépp gamme complet boo xamante ni am na ay poudre. am lépp lèvre am parfum. même boob tamit gamme boobu ñun ñoo koy indi fii. lépp la am. après qualité moom boo koy wër moom ñëwal joor ki sim ci. parce que ñun duñ jaay fals. original la. waaw moom la ñuy jaay. ah merci euh, ki nga xam ne mooy Mansour Dramé kon mbokk yi ñi seetaan ami internet fu ngeen di mën nekk ci biir réew mi wala ci àdduna bi rawatina ñi nekk ci région yi daw leen gaaw bu leen taxaw di tendeefal cosmétique en face de la station totale bu ngeen fi ñëwee lépp produit le jëm ci li parfum lait de corps ba ci ay couche incha allah bu ngeen fi ñëwee seen xol dina sedd ngeen jël yóbbuwaat ci biir région yi wala ci biir région de Dakar. noté leen bala mu raw 77 908 40 08 wala 77 990 04 26 wala ngeen jël 77 832 48 90 numéro Yoy, bu ngeen ci tak tak fu di nekk ci biir Sénégal ci 14 régions yi il suffit bu la neexee nga toog fa nga toog ñoom ñu envoyé la ko livré la ko à domicile moo xam grossiste nga moo xam demi grossiste nga moo xam détaillant nga ba ci ki nga xam ni tamit consommateur bi la ñoom ñëpp bu ngeen ñëwee fii ci ki nga xam ni mooy Dior cosmétique en face de la station Total marché Dior Parcelles Assainies unité 19 seen xol dina sedd chez Modou Dramé dara du yomb yaay seen i wala ngeen consommé ko seen seen biir kër ak Dior cosmétique daal njaqare jeex na ndaqara dëddu bànneex teew kon may jaajëf bu baax baax Cheikh mi nga xam ne mooy sama caméraman bi moom la àndaloon si réalisation Babacar Ndiaye Soda programmation Fall Ndiaga toute l' équipe de Sene Info Rewmi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox ni beneen numéro ci beneen vibes